dama gis ne euh, redevabilité dafa war a nekk dans les règles de gestion et de fonctionnement d'un État mhm. parce que bu ñu la dénkee dara war nga sax de temps en temps avant ñu joxe rapport nga génne yow ci sa bopp publier li nga def mhm. loolu dafay tax sénégalais yi seen xel gën a dal parce que aussi c'est l'argent des citoyens la ñuy jël di def des politiques publiques mhm. nit ñu am confiance surtout ci yenn programme yi ak yenn euh, action yi nga xam ne gouvernementale d'envergure. Mm-hmm. de telle sorte que man boo ma invité woon fekk ne publier wuñu rapport du mën a ñëw. Mm-hmm. mais ginnaaw autorités yu bees yi jël nañu initiative publier les rapport loolu dina tax nit ñi mën a waxtaan ci mbir yu mbiru rapport yi. Mm-hmm. pas dans le sens sensationnel mais dans le sens juste de la raison. pour que nit ñi. war a mën a xam ne non seulement c' est dans la dans le fonctionnement normal des choses. Mhm. de rendre compte. parce que man fi ma jàngee liggéey j'ai commencé dans le privé. Mhm. après ma liggéey dans les programmes de la banque mondiale mais foofu c' est tout à fait normal et c' est dans les sites. li nga def accessible à tous c' est accessible à tous mhm. même les salaires. ah même les salaires. au niveau de la banque mondiale je me bi ñu may recruter dañuy am fu ñuy tuddee cost table. léegi yow bu la neexee. nga dem consulter foofu bu xam sax salaire bi nga xam ne mën nañu proposer avant ñu lay recruter. Mm-hmm, mm-hmm. bu la nga négocier. mais fii nii boo tuddee salaire rek. ça devient quelque chose de très sacré. souvent même ñi nga dëkkal sax duñ ko xam. léegi il faut que mu bokk suñu fonctionnement ba nga xam ne dañuy évoluer dans le sens de bu ki liggéey ci dara. Mm-hmm. war na mën a rendre compte. Ah, bu boobaa euh, dafay dissuader même. dafay dissuader ñi nga xam ne dañuy bëgg def lu ñaaw. Mhm. danañ xam ne kat ëllëg. dañuy publier les rapports waaw exactement mhm. donc c' est des mesures préventives yi nga xam ne. Mhm. je pense que euh, am na benn côté positif. loolu la benn côté négative mooy waroon nañ mën a peut-être ne donc li passé passé na. mais pour des mesures préventives maintenant lépp li nga xam ne nit mu ngi koy gérer danañ ko publier ngeen xamee ko noonu. bu boobaa dina dissuader nit. à aller dans le sens. mais mais est-ce que est-ce loolu doon na am njariñ dans la mesure où le président Sall bi muy installé c'est ce qu'il avait dit l'OFNAC c'est pour nous. Euh, mais ah, au bout du compte gis nga li ci xew yëpp. et d'ailleurs loolu loolu ça me permet de dire que les rapports de l'OFNAC. man mhm. bi ma ko gisee je suis un peu dessus quand même. ah ah oui oui dessus. parce que ay rapports séminaires nga ciy gis dem nañu Saly def. ñu bëriwul importance exactement mhm. on attend des pas des rapports d'activité. Mhm. jënd nañ agenda on a formé les gens non mhm. on attend des rapports d'enquête. Mhm. c'est ça qu'on attend de l'OFNAC. c'est plus sérieux en c'est plus sérieux. voilà et et euh, le terme me semble assez fort des fois. xam nga sénégalais dañu tàmm way def naa révélation bii nii. man en tant que cadre supérieur dama koy dama koy magal sama bopp je ne suis pas là pour faire des révélations mais je peux parler des faits aujourd'hui yi nga xam ne ça n'indexe personne mm -hmm. ça ne touche personne mais c'est dans le sens bu ñuy nar a ñu bañ a yegg ci. Ah. yu demee noonu.